ay ca mbokk yeeg xarit yi teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am comme niñ ko baaxoo di defee altine bu jot ci 21h ñu fas yéene jàkkaarlook yéen man ma jigéen ak Sanjogu nga ci l' émission des émissions ñu fas yéene waxtaanee nag waxtaan yi nga xamante ne nii gars yi ñu ngi koy waxtaan ci penc yi euh, bu ko defee rek ñu indi ko alaaji daal di ciy joxe xalaatam ginnaaw biñ leen nuyoo nag ziar leen ñaanal leen jàmm ju sax dàkk noonu lañ koy ñaanalee diwaanu waa Cees benn dëkk ñaari gaar benn aéroport. ñaanal itam Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci biir kër ga te koy ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp ñi ñi setaan ci biir réew meeg bi ci réew ñu leen di bàyyi xel alaaji Njóogu Meng moo ngi nii toog ñu daal di koy bàyyi rek mu nuyoo ak internautes yi nga xamante ne ni ñoo ngi suivre l'émission des émissions ci solution info alaaji maa ngi lay nuyu ma jigéen ñi ngi lay fay ñi ngi am mbégte ak kontaan ci yow mm-hmm. dem ba Touba nuyu xalifa général des Mourides sëñ Mountakha ko ñaanal mu yàgg ci ànd ak wér. allahumma amiin ay di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. Mhm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke mu yàgg fi loolu tànn ak wér. allahumma amiin di nuyu sëriñ Xaadim nekk ca kër gaa ak njaboot ga yëpp. ñu leen di mhm. nuy di leen ñaanal jàmm. Mhm. nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim Allah nuyu kilifa diine yëpp ñu ngi nuyu bu baax ñi nekk ci xarala gi. ñëpp di ci ñoom mbégte kontaante eh, Modou Abdoulaye ak eh, Mm-hmm. Euh, sooy bu Assane Mesere ña nga ca xulli ba ak sukkay na ak kan sukkay waaw ñu ngi ci seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ñu ngi leen di nuyu di leen <laughs> sukkay sa xarit <laughs> ana tey Assane kiiwu la quoi non Assane tey waxuma dara Assane nag ca waxtaan ba taluñu sax. ña nga ca débaayé quoi. <laughs> waaw tey ñu ngi ca débaayé. ñu ngi Bekkaay Bekkaay nga fa de ah. Bekkaay waaw mu dem na sànq nag. ñu ngi koy nuyu bu baax a ah, baax. moom moom Bekkaay ak ñëpp ñu toog ci mm. régie bi rek ñu leen di nuyu bu baax a baax. sooy bu ne su su nga koy wër. sooy <laughs> oh, sooy du mën a tooñ de. waaw baax na noonu la Euh, des fois il faut il faut wax di am pour que nit ñi mën a defaraat seen mm. toggaay mais noonu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom son bu Diop Ayassane Mestere rek képp ko xam ne rek yéen a ngi ci biir résib bi su kay na maa ngi lay nuyu ak ndeyaa alaaji tey jii nag daañu ànd ak yéen ci ak waxtaan ñu daal di koy fas yéene dooree ak ki nga xamante ne ni moo di Adama Fall bu APR moom nag euh, ndaje mañ doon amal fële ca siège u ba fa far ba kàddu yam fa yëkkati woon jëm nag ci ni ñu ko def ca këram gëlee nga xamante ne nii moo nekk foofu ca jam ñaajo moom eh, Adama Fall yëkkati na ci ay kàddu jëm nag nee na nag Farba Ngom bis buñ ko laalee danañu xam ne nag réew mi dina tàkk jëppee ndax far ba mooy mag ki mooy Farba te ku laal far ba laal nga mag Macky te boo laalee euh, Macky rek mooy réew mi tàkk na daañu ci ñëw ci ay leeral léegi léegi ci kanam lay doon ñu ànd ak yéen nag ba tey ak ki di Cheikh Yirim sekk Cheikh Yirim Seck nag jàkkaarloo bi mu doon amal ak Aïssatou Diop Fall moom nag nee na ko ndax euh, du duñu la indil ki nga xamante ne nii moo di Ngagne Demba euh, Touré gars yi di ko woowee Mbappé ngir ñu mën a def débat ñoom ñaar waaye nee na nag dafa lànk ne du jàkkaarloog moom Ngagne Demba ture nee nañ suñu bëggee nag mu débat dañ koy daal di tegal ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko muy premier ministre bu Sénégal moom la Cheikh Yérim wax daañu ci ñëw alaaji indi ci xalaatam ñu jeexalee ko ak Abdou Bara Dolly moom nag xaritu alaaji la Euh, fi mu mujjee daal du fenn rek fudul rek daal di jéem a dem fexe rejoindre ki nga xamante ne ni moom moo di Amadou Ba mi nga xamante ne ni fekk si woon na ko foofu ca diwaanam di an mariste ñu waxtaanee rek ngir fas yéene bennoo ci élection yi nga xamante ne ni moom la ñu dëgmal euh, législative yi nga xamante ne dañuy tànn nag ñi nga xamante ni ñoo fas yéene toog fële ca pencum ndaw réew ma ngir euh, joyanti askan wi seen i ay jafe-jafe ki seen i bëgg-bëgg nañ koy daal yaatal léegi dooree ak. Adama Fall kàddu yi nga xamante ne nii yëkkati na ko jëmale ko nag ci euh, gouvernement bu yees bile jëm nag ci Farba Ngom dañ ko def mu ñaawlu ko nee na itam euh, lii koy euh, Sénégal mën a tax mu dem rek mooy ñu bàyyi leen ñu nekk ci seen jàmm lu ko may rek réew mi leneen lañ fi daal di gis lu soppeeku ñu déglu ko tëddeelu si. lan la toppee Farba Ngom. musul gérer. musul dara. simple député musul nekk président de commission musul nekk président vice président assemblée nationale fekkul simple commission xam nga lu ñu bëgg bëgguñu élection am moo bëgg ñu moo tax ñu bëgg jàkkaarloog Farba Ngom nañu ñëw ñu sëgg bëre. déggoo li ma la seen seen 54 pour cent yooyu 30 pour cent la toll nañ jam élection législative dañuy ñàkk Fouta man maa la wax lii ils vont perdre Fouta. ils vont perdre certains départements ils n'auront pas cette majorité à l'Assemblée nationale parce que nag dañoo laal laalaake te ku ñu laal nit du ko laal Farba Ngom moom ku ko laal mooy laal nañ alliance pour la république Farba Ngom ku ko laal mooy laal nañ Macky Sall te ku laal Macky Sall Sénégal tak la mobilisation de l'alliance pour la république la remobilisation des troupes derrière l'alliance pour la république pour une victoire à ces élections législatives loolu dong ci ne heure combat jot su heure combat jotee ku dee doo gor ku dund doo gor à ce pouvoir là aux gens de Pastef préparez-vous à faire face à l'Alliance pour la République lu xew essence bi nañu teggi seen tànk moo gën ci ñoom suñu bëggee ñàkk pouvoir bi nañu continuer ci liñ ne suñu continuer ci liñ ne duñu àggale pouvoir bi man Adama Fall maa wax loolu jërëjëf euh, Alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne Adama Fall yëkkati na ko nee na nag gars yi dañu bëgg bañ a dem euh, ci élection yi yaakaar naa nag ku tëgg ay élection am jàpp datam moom du kooku moom mooy bañ a dem ci les élection nee na looloo tax ñuy menacé fi mu toll nii euh, gars yi ku ci mel ni Farba Ngom nee na nag bis buñ ko laalee nag dinañ xam ne lépp dëgg la. waaw Adama de nee na heure bu jotee ku xeex doo gor. <laughs> Eh, alaaj <laughs> alaaj tontu woon laaj de. nga yóbbu Adama xeex quoi nee na bu jotee ku xeex doo daa juum rek njuumte dafa bëgg a wax ku xeexul doo waxaat beneen wax daal de 54 pour cent yi bu li ñu xam mooy dañuy perdre Fouta 54 pour cent yi Fouta bokku ci woon di dañ koo perdre. xam nga moom. day wax te li muy wax maîtriser wu ko. ndeysaan dafa xamul sax maanaam aadama nag day liggéey. Hmm. loolu ci liggéey la nekk waaw. ah bon waaw yuuxu yi muy yuuxu nii yëpp yaa ngi koy dimbali sax yow mi ko indi ci kii bi nii far ba gis ko defe ne mi ngi jàpp ci liggéey fi mu doon day liggéey nag. Ah, Adama day daan doolem. Ah, ah, waaw fi doon nii xaalis bi mu déggal far ba ci la bëgg a mos. lii yuuxu yëpp loolu dong la du leneen. mais Alaaji est-ce que nekkul tamit nag guise de ñoom ñoo bokk seen parti kay ak Farba séquñu dara. aadama dafa xeexal na Amath Suzanne Camara te taxul. waaw mais day buruxlu suñ toll nii dama la bëgg a xamal ne la aadama kii boo deful ndànk mu sotoo ak sax farba ah. xam nga. yoo xamoo xamoo xamu xamoo xamoo aadama mi. day buruxlu day forcé ay relation yu nekkut lay forcé fi mu toll nii comprendre nga <laughs> maanaam moo tax xamut sax nu muy xeexalee ki muy xeexal. waa coono bii pour. ku laal farba. réew mi tàkk. far boobu xam nga Adama waxi caaxaan rek lay wax. Hmm. Hmm? waxi caaxaan rek lay wax. ma jigéen taaloo kilim bële da ngaa taaloo kilim bële muy amee bu ko gaañ. moo tax kay xam nga ay caaxaan rek la ne wax yi muy wax yëpp ay waxu ko daanu ci sareet rek. Hmm. waaw ah mais alaaji nag day solidarité. ñoo bokk non non non non moom ban solidarité ban bokk parti moom fan la nekkoon moom doon wut ay foto yu Macky Sall di tappale di wut ay kii. aadama yàgg dama la bëgg a xamal ne la ku mu xeexal fan ban combat nga mës a dem gis fa Adama Fall. Ahmed Suzanne Camara keroog bi ñu ko fi jàpp wàccu ñu ñoom ak ñoom Omar Sow. dafa demoon seetaan xool ci lu mu ne bi mu ñëwee nett li booba la fa gëj. yaa ngi dégg ñoom lu Ahmed Suzanne Camara dugg ñoo ko ci dugal ba noppi arrière. Amath Suzanne Camara ngi ay mbokkam génn nañ di ñaan jéggal comprendre nga. Hmm. ñu ngi ñaan sax pour ñu jéggal ko quoi. parce que euh, ay mbokkam génn nañ doon ñoo xamante ni bi wax dëgg fa yàlla euh, jéggalu nañ ci kanamu penc mi. Hmm. waaw demander excuse donc loolu mooy li nga xam ne parce que gars yi nii lañ lay def. Ah, dañ lay ñëw bëmax la bañ tëj la ñu bala. defuñu ko fi waajooju ba jaxate. waaw. Hmm. suuxlu ko ba mu dugg prison après nuñ def. toog di seetaan zappet ba ba pare ci. Ah, duñ ko duñ la xeexal mais lu tax xam nga lu tax. mbir mi duñ bàyyee moo tax bi mu génnaatee gis naa ko mu def émission ci Maimouna Ndour Faye nit ki mën nga opposé wu li mu wax ni mu mujjee wax noonu loolu mooy wax ju yenu maanaa comprendre gis naa booy di ko mbalag ak affaire yooyu mais noonu mais li mu wax noonu pour man loolu la. nit ki da ngay responsable quoi am na wax yenn wax yoo xamante ni waroo ko wax doomu aadama. mën nga opposé wu. mën nga bañ a ànd ak nguur ki mais nga def ko façon boo xamante ni bi façon bu civilisée la. Mm-hmm. du dëgg. mais mais est-ce que nekkul du li mu ne far ba mooy Macky moo tax te ñoom. Adama Fall yàgg nañu xam. mbëggeelam ci Macky Sall c'est que yow yaa kay kii chaque jour rek mais euh, alaaji nag xam nga ne euh, nag euh, Adama Fall nag moom dafa dafa dafa bëgg Macky nag. bëgg Macky Macky bëgg koo gën Macky ko bëggut. Ah bu ko Macky bëggoon recevoir ko ku dem ba jël ay photo di tappale dem ci mbootaayu jigéen ñi jigéen ñi ko ci bitti génnal ah donc Adama. nañu ci gisee Adama ni mu toogee nii xam ne nag xam nga lii da ngaa bëgg mën da maa bëgg a ma. coma ci parti bi nag nañu waxante dëgg nag <laughs> wala montre bu rafet bii mu takk. karabaatu. tërëxus waa jàpp yi yéen c'est que da ngeen a xamul Adama Fall. Adama Fall. mii tey. Adama Fall bokk naa ci ñi ko créé. émission ataaya. Mhm. dama koo xam. xam na c'est que yi dañuy gis Adama muy tërëre dama jëlem dama ko xam Adama ni ma ko xamee sax xamee wu ko boppam. donc ko maîtriser. xam naa léeg-léeg ma wax ko mu ne loolu kañ la ne ci man après xoolaat gis ko ci boppam <laughs> dama koo xam. dama ko maîtriser c'est que buy théâtre damay xam ne mi ngi ci théâtre la de quoi maanaam wax yooyu mu wax yëpp waxu théâtre la day théâtre rek taxawu naan ko laal far ba kërëb kërëb gis nga bu ñuy laal far ba kenn du ko fekk day daw fu dama ko xam xoolal aadama Fall xool ko xool ko xool xoolal kanamu Adama Fall bi xool xoolal kanam gi ah alaaji nag kii nag dara newu ci nag kii daal ku gëm parti bi la di xeexal parti kanamu ku gëm parti nga gis Adama Fall bi kanam gi sa digganteek yàlla xool kanam gi Adama Fall bi xool ko xool ko. voilà kanam gi boo ci gis. kanamu Adama Fall bi yow njàmbaar njàmbaar gis nga ko ci kanamu Adama Fall bi njàmbaar xoolal rek carrément yow fi mu toll yow xam nga jigéen ñi parents yi dañuy bëgg héros ak affaire Adama Fall mi gis nga ko lenn héros ci moom. waaw waaw dafa mel ni nag wax dëgg yàlla de ah moo ngi noonu daal <laughs> jërëjëf. naajo bu mag baal ko nag. Mhm. baal ko baal ko garaaw. daal di ba xoolee mel ni ku jóge ci lekk piire naajo bëgg a ñëw bëgg a. fàttali ñu <laughs> nga genre Adama Fall yi. Eh, li ñuy wax. Mm. vraiment. maanaam ku leen déglu dañ lay. sànq daal. non day théâtre xam ko Adama xam na xam na ni jàpp naa ko. tey théâtre hmm. lii mu wax dara la ci gëmul gëmu ko c'est que ngi ci liggéey nag hmm. ba bu gisee sortie bi comme tey dimbali nga ko wane nañ sortie bi ak affaire yooyu ba mën na ko gis hmm. ne aadama ak may jàppale woo ko waaw alaaji nag pour kii nag itam ko yàqal yow tamit nag bàyyi noonu pour mu xam parce que tamit bàyyi noonu rek garaaw Aïcha mi ngi noonu baal ko ji Adama nag euh, lu ñu mën di wax sa xarit la waaw dëgg yàlla mi ngi noonu mm-hmm. dañuy daal di ànd ak nag ki nga xamante ne nii moo di euh, Cheikh Yirim Seck nee na nag xeeb na ngañ dem ba ci débat euh, ki mu soxla daal mooy Ousmane sonk premier ministre bi ñu déglu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ba muy waxtaan ak Aïssatou Diop Fall bu ñu bëggee débattre kay dañu yónni Diomaye wala wala wala Sonko mu ñëw ñu débat. waaye itam a gis Sonko toog di di di di man lu may lu may débattre ak ngañ dem ba lu may wax ngañ dem ba ah, tey. man dama ma jaaxal. seen premier ministre bi kay comme mosul def débat public nañ ñëw ñu débattre. mais mais yéen affaire boo ko doon def ak moom nag mooy euh, xaw lancement. waaw ci début waaw. man man Pastef ku ma fay débattre ak kuréel Ousmane Sonko bu mu koy bu ñëwee bu bëggee ñu débattre lu ma sooyoon ci Ngagne Demba Touré man ma fay débattre. mais mais taay nag Ngagne doo débattre moom pourtant. non du ma moom ak Ngagne Demba Touré. mais pourquoi tu te débats pas avec euh, notre chef directeur général de la SOMISEN. ëpp koy sagar. ak moom comprendre nga la lay wax ak moom. ah mi ngi ñaaw mi ngi ñaaw. non du ma wax ah, ngi mos. non ma wax ak moom mi ngi mos mi ñoom bu ñu bëggee ma debaat hmm. dañu ko Ousmane Sonko mu tànn ko neex. Hmm. tànn thème yu ko neex. yaa ngi dégg. tànn ci thème yu ko neex. tu comprends. Hmm. chaque question bu ñu posé mu choisir ba xam mooy njëkk a wax wala mooy mujj a wax. mais mais mais mais nag grand xam nga ne. est-ce que tu comprends. mi ngi noonu euh, alaaji euh, moom Cheikh Yérim de dafa mel ni euh, comme ni ñuy wax rek ne Cheikh dafa bari xam-xam macha allah moom nag dafa jàpp ni boroom xam-xam bu mag bi peut-être moom la soxla ci ci ci ci waxtaan mais pas Ngagne Demba Touré. <laughs> xam nga Cheikh Yérim. Mm. sax. ah. que boo xamee xam-xam maanaam boo xamee xam-xam. di nga xam ne xam-xam du age maanaam du ci diw am na nangami at maam nangami at ci bopp la maa ko ëpp xam-xam mm, ci bopp la moom fi mu tënk xam-xam moo lay wan ne la dese naa xam sax xam-xam mooy lam li mu wax nii nag maanaam euh, le fait que mu bëgg wax ne dafay taxaw ci kaw bopp Ngagne ba Touré ngir yegg moo lay wan ne la dafa xamut li tax xamul mooy gis nga am na domaine yoo xamante ne bii tey xam nga daf ne nañ jëli Sonko wala ñu jëli ji Jomaay am na domaine yoo xamante ne bii tey Sonko moo ko gën a maîtriser Ngagne Demba am na domen yoo xam ne Ngagne ba ko gën a maîtriser Sonko comprendre nga. Hmm. est-ce que xam nga fi may waxee. pour mu pour mu xam pour mu nekk nit. Hmm. parce que defe naa ni waxam ji dafa dese nite wax ji moo desee nite quoi comprendre nga hmm. le fait que nag mu ne xeeb na. débattre nga du question xeeb da ko ragal. ragal waaw xam nga lu tax mu ragal ko. moo tax mu daal di bëgg a tànn beneen combat boo xam ne du am lu mu ciy perdre. maanaam tey Ousmane Sonko bu toogoon di débattre ak euh, Cheikh Yérim Seck lan la ci Ousmane ko di gañe dara du ci gañe dara amut lenn lu mu ciy gañe par contre dafa mel ni Cheikh Yérim Cheikh moom bu ñu nekkoon tey Cheikh Yérim lañ tànn pour mu débattre ak Ousmane Sonko rek même bu débat ba amut sax ndam la. mais est léegi loolu la bëgg dugal ci bopp nit ñi maanaam pour wan nit ñi ne leen man. Mm, mm. Sonko laay débattral mais est-ce que nekkul li mu wax ne Sonko ñemewul débat public. non moom mi Sonko organisé na fii di présenter livre. alaaj loolu yàgg na de. waaw mais dégg may déglu rek xam nga bul ne ma yàgg na am na wala amut nga may am na kay lu bul ne ma yàgg na wala problème. mais dafa am mu bokk ci ñi ñu tànn. moom seex Yérim. Mhm. tànn ko tànn ñoom Maïmouna Ndour Faye ak ñooñu ñëpp ñu daa dee rangaloo. mooy livre solution bi. yaa ngi dégg. Mhm. di discuter ak moom. ci point yi nga xam ne bind nañ ko ku ci nekk lire livre bi ñëw war ko cee laaj mm-hmm. ak laaj yu critique yoo xamante ni bi dañu taxaw pour critiquer maanaam dañu dafa bind dara ba pare ñoom ñu liir ko ba noppi ñu ñëw di ko laaj di ko wan kii mu di leen jox ay réponse mm-hmm. ci li nga xam ne mooy mbir mi mm-hmm. kon kañ Sonko balaa muy débattre rek moom da leen di dajale bañ mat fukk mu def la Alburi waxoon <laughs> mu boole duma maanaam fukki yirim maanaam yirim dañuy tànn fukki yirim ñu mel ni moom ñu soog a mën a débattre ak sonk mais su yirim kese du débattre ak sonk quand loolu yéen wul maanaam ah. tey jii bu ñu waxoon ne yirim a ngay débattre Sonko loolu yéen wut maanaa quoi ci xel. pourtant pourtant laaj gars yi nee na yirim borom xam. noonu yirim ban xam-xam. ah laaj yirim bu toogee si télé bi nit ñi invité ko nga gis ni muy waxee. ni muy ah, waxee. waa gars yi da nga lii laa wax ci xam-xam bul ne ma ni muy waxee. Ah, borom xam-xam kay mooy dem bind livre ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam livre livre li yërim livre am yi mu bind yëpp ñu xam ko livre yu foo la ay fii la fi benn waay boo xamante bi daat ne ca corniche ba ku séqoon nag benn jigéen nii ak nii attribué ko Sonko te ñépp xam ka nga xam ni moom la doonoon ci jamono jooju yaa ngi de livre yërim yi dañoo foo mu dem bind ci yonent bi ñu ne ko baaxul léegi muy war di wax mais Yérim mu toog di la expliquer avant élection yi waroon a am yëpp. mais li ma waxoon dara amu ci. mais dana woon dana woon jomaay di dem Sonko du rek. mais nee na moom borom xam-xam. mais baba borom xam-xam ci lan. ah xanaa si wax lay wax. Yérim koo xam ne li ngay wax du am. léegi xam la am ci lan xam la ci wax lu amut wala lan ban xam-xam la am. ah waaw mën na ne rek. yaa ngi de bu dee nag xam-xam ci wax lu amut moom peut-être mën nañ koo ko attribuer ne way vraiment il est champion ci lépp loo xamante ni bi wax na ko te du am. mais voilà Yirim bu woon xam-xam dinañ koy. invité ci plateau yi xam nga Yirim non c'est que dafa Yirim dafa ñëw ba tey loolu lay nappee journaliste yi dafay ñëw boo ko seetee sax bi muy wax maanaam daanaka yow boo nekkee journaliste sax toog ak moom di wax ak moom daanaka buy wax moom di yëkkati boppam da lay xas. Hmm. te doo rendre compte ne mi ngi lay xas. Hmm. parce que ni mu doon yëkkatee boppam ak ni muy tuutalee journaliste yi. defe naa ne bu dee journaliste bu dégg nga. waroon nga gën a mën a défendre corps bi nga ne. que Yérim mii di la jéema a noyyi. di la jéem a noyyi. noonu la def kii waa ndaw si sax. waaw noonu la ko def. mais ndaw si ko humilier. xamu ko loolu mooy ñàkk a xam. noonu lay def. Yérim day créer ay histoire yoo xamante ni bii ay histoire boppam rek la. comprendre nga. Mhm. ay histoire yu boppam rek lay créer toogaale ko dama mës a seetaan benn film boo xamante benn waaye boo xam ne journaliste la day bind ay kii yoo xamante maanaam day imaginer di bind li muy bind du nekkutul. existé woon comprendre nga mais journal bi day naaw dëkk bi yëpp di ko liir maanaam yi muy bind day créer quoi moom day inventé. man bu ma kiiwutoon damay wax ne Yirim ci kooku lay inspiré wu ci film boobu lay inspiré wóor na yàlla billaahi li muy bind existé wut quoi mais nit ñi dañ cee accroché wu dem na ba seen rédacteur en chef beeg yooyu dem ba découvrir ni waa ji li muy bind amul mais après dañ ko arrêté parce que daf ne àndut ak éthique lii du yoon parce day wax loo xamante ni bii nit ñi dañu gëm ni lii dëgg la tudd dëgg comprendre nga. Mhm. foofu ñu ngi lay yëkkatil ak lu njaay mi mën a dox dox dox dox dox. Mhm. mais bu fekkente ni bii tey li ngay jaay ñi koy jënd dañoo jënd lii c'est parce que dañoo jàpp ni li ngay wax dëgg la tax ñuy daw di ko jënd comprendre ga ki xam nga xam ni jàng na génn na ci école bu normal bu demee ba yëkk ni lii ay waxi caaxaan ay mbiri caaxaan la mhm. dafa laa war a arrêter. parce que daf ne ko bu ma la arrêté wut donte li ngay def mi ngi dox. mais Sénégal nag ñoom léegi ñoom ñaa ngi koy suivre ñu ngi lay bàyyi xel mais. Mhm. baaxul ci métier mi. Mhm. loolu la. Mhm. Yérim façon façon boobu la ko maanaam day nettali loo xamante ni bii mais mais nag problème moom li ko dal li ko dal dafa gën a garaaw loolu. lan la maanaam dafa dem moom ba gëm yi muy créer ne dëgg la. moom dafa dem ba gëm ni léegi da doon créer xam nañ da doon créer mais dafa dem ba léegi gëm yi mu doon créer histoire yi. d'accord Yérim day léeb rek. lippoon léeboon lippoon. amoon na day léeb rek. wóor <laughs> eh, <laughs> dañ koy daal di jeexale euh, ak ki nga xamante ni moo di sa waa ji muy député Abdou Bara Dolly Mbacké moom nag euh, moom Amadou Ba mi fi nekkoon premier ministre ci jamonoy Macky Sall dem na seeti ko ngir rek waxtaan ak euh, safonte jëm rek euh, ci élection législative anticipée yi nga xamante ne ni war na am di 17 novembre bi di ñëw ngir ñu booloo doon benn moom nag nangul na ko li ni mel. damaa xamul nag fii si diggante bi ndax changement dina amam déet ji sa waa ji daal moom chaque jour ak fi muy fële li Assane wax rek moom saay su xëyee wax rek nañu jàpp ne li mu wax loolu moom moo am ba gis leneen du koy dégg. ba wax dëgg fa yàlla su ma nekkoon Amadou Ba moom du ma nangu. ah lu tax. waaw mais ma eh, am ngoro goo xamante ne damay ngoro nit. Hmm. mu jekki jekki ba ma fa. dem. dem wëndeelu ji ba ñëpp ne ko nobbuma la mu dellusiwaat ku mu dem na ko nob naa nga ne ko nobbuma la mu dem ba jaaxle bëgg a dellusiwaat daal di ñëwaat ci yow. Ah, parce que daa dem ba xam te fekk ne yéen a àndoon mun a yëkkati na xolam bi jox la ko. Ah, léppam la la jox ndax say qualité lii ak lii ak lii. olof Ndiaye nee la nga doon yootu jotoo ko mu bala ah. wëri feneen. Hmm. fu mu yaakaar ni fa la ay mbiram mën a doxee. Hmm. mu wër a wër a wër a wër ba dajal. Hmm. gis ni fenn baaxut mu taxaw def déclaration ne day demal boppam dina yóbbu vendredi quinze millions déposé ñu ne déetewaay mu teeree ca Amadou man su ma doon Amadou ba dama naan ko déedéet. mais est-ce que utiliser wul li olof Ndiaye di wax ne. koy dem ba xamatoo foo jëm dangay dellu. waaw fa nga jógee woon non moom ah. pour mu dellu fu mu jóge dafa baax parce que mu fu mu jógee bari <laughs> fu mu jógee fan la <laughs> jógewut ci Amadou ni fu mu jóge <laughs> moom pour bu dellu fi mu jógee dana koo de <laughs> pour dellu fi mu dana compliqué de. Ah, moom daal moo ngi nii rek mbàkke li muy ah? def de moom rek moo ko sañ. waaw ah. donc. Mhm. moom dañu war a xam ni actuellement. Mhm. wax dëgg fa yàlla Amadou moom. Euh, gëm naa ni nag bu gars yi defaree ay liste peut-être sax mën naa mer parce que yaakaaruma la mu doon peesee ti mu peesee ko ci biir euh, euh, kii ba parce que tamit wax dëgg fa yàlla mënut a peese li mu daan peese parce que bu doon toog na ci Amadou Ba ba nëga ni peut-être que ni dina am position mën na am position bu baax mën na kaas am position bu baax mais Amadou Ba xam na ni kii moom àndut àndut ak moom bu ñëwee dafa wëndeelu ba sonn rek ñàkk pexe ak bëgg a delluwaat assemblée. fëgg na ay bunt bunt yu ubbeekuwul. Mhm. jaar na ay porte yoo xamante ni ubbeekul mu ne naa dellu fa ma jóge woon. parce que tamit dugal ay quinze millions kii bàyyi Amadou dugalal la quinze millions boole la ci kii bi moo tane. waaw moom kon ay calcul lay def. waaw du calcul 15 millions yooyu mu waxoon xam naa de koo calculé waat ne quinze millions yi boo ko fi perse mu subale naa dem fexe bootu ci Amadou bañ a joxe 15 millions parce que dem joxe 15 millions mu wóor na ni 15 millions yi da nga koy joxe ci baali foto moom moog loo sànnee yam rek. mais ce que du ko yàkkal itam. du yàggal lan. du ko gën a yàkkal moom mii. ah moom day politique boo xamul lu ko yàqal mu toll moom xamul ni façon politique am bii muy politique jeex na moom xamu ko na. parce que yow yow bu teyee nga wax lii bu subaa nga. wax lii finalement est-ce que nit ñi tamit dinañ la joxati nopp. est-ce que moom wut na nit ñi jox ko nopp parce que bu la waxee dara balaa ngay dégg loolu muy wax leneen. ah mais alaaji kuy politique ku ne kay da nga bëgg ñu jox la nopp. jox la nopp kay mooy boo waxee ñu déglu la xam sa programme pour mën la dem voter. moom mii sëñ Abdou Bara Dolly. waaw programme am ba lan mooy la. Ah. waaw moom daal wër naa wër a wër a wër a wër a wër ba gisut. mu ñëwaat ci Amadou bi bañut dara Amadou moom ku yow tuddee ko xëri rek xërim bañut <laughs> Amadou moom mooy xëri. ay mais dañuy politique rek. <laughs> Amadou <laughs> nit lay moom mooy xëri. mi ngi waxtaan moom moom bañut dara lu ñëw baax la. waaw wax dëgg fa yàlla xam nga politique bi nag ku ci nekk ak ni ngay doxee. Amadou moom taxawaayu xëri la taxawee moom. Hmm. waaw xëri bañut dara ku ñëw baax na. pourtant Amadou am na lu muy bañ de. lan dégloo ko keroog. Amadou ba mu ñëwee di wax. lu muy bañ. bi muy kii. lan la lu mu wax ne moom lay bañ. non waxuma ni day wax ne day bañ dara de ma ne xanaa dégluwoo ko boo ko xoolee xam ne bañkat la tamit bañ a tax mu génn. Amadou ba ci euh. APR. niñ ko def waaw waaw comme ko bañkat la comme yow yaa gis mbañkat googu waaye wax dëgg fa yàlla doom man bañkat googu nga wax moom gisuma ko. bañkat moo tax mu mu créé bu yëfi boppam aw yoonu boppam balaa ñuy tas parti Macky di tas parti ba fekk na jël na yoonu boppam alaaj loolu moom doo ko bañal nañu waxante dëgg rek ay ca ñu tàggatoo comme waxtu bi xoj nañu. macha allah kon Amadou bañkat ñu ngi koy ñu ngi nuyu ñëpp di ziar waaw di joxante di daje incha allah rabbi beneen altine. altine jàmm ci kàttanu borom. incha allah jërëjëf Mbengue waxtaan bi am na solo lool te neex na itam. Eh, di jaajëfal nag képp koo xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel jamono ji eh, di jaajëfal Modou Diouf Abdou topp Abdoulaye Diallo ak ki nga xamante ne nii mooy Serigne Fallou Goumbala jox leen nag dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.